kilifa yi diine ci senegal yépp war nañoo wàcc si mbedd mi. <laughs> asalaamaaleykum guys ndekete ginnaaw vidéo oustaz euh, you know oustaz bi xaw ma la xaw ma góor gi ginnaaw ko mu ne. Cheikh Cissé fu ko nit manti gis mën naa jëfandoo ak moom maanaam yar ko ndeg lim def lim wax nii. ndekete li tax kay ma gis beneen vidéo Cheikh mu naan. koo xam ne dafa tooñ yàlla kooka luy xàtteem liy xàtteem mooy fa war a balu xàq su ko deful ñu dóor ko def ko xaw ma laan waay su fekkee balu na xàq fañ ko war a ba te man fi ne maa ngi balu xàq <laughs> su ko wéyee dëgg def ñaanal leen Cheikh Cissé yàlla bu ko nit ñi gi dóor ko ba mu day boppam gannaaw buñ ko dóoree woon ba muy waaj a dee ti waawoon. Mm-hmm. gii nga seex Cissé ku dem xàqi gune yam doon tëddoo Afrique ba ñooña mag mag mag jëmm ba tey xamee naqat wa di ma kool di ko wax bañ ma gisee ma di ko xas xàq joojaa ko jàpp ak xàq ni ñi mel ni man ndax seex gannaaw bu ma waxee ne ma yow ba nga doxee gune ñu maye la moo tax nga dof ne man lay gàtt ngaal dof ak man lay ñaawalee ma do gune ñu tëdd ak man sala la ñëw gannaaw gi nag ne ustaasam foo ko doon juutal ba mu doxee gune di jàng ba pare muy promote lool ba tax muy xas koo xam ne ba nga ba nga doxeegu ne fañ tëddak ak yow su ko defee mbooleem koo xam fañ tëddoonak ak yow ba nga doxeegu ne bu fekkee ne fañ la takkoon bu fekkee ne fañ tëdd ak yow comme niñ ko defoon moom su ko defee bul wax su ko defee nit ñi tëdd ak gune tëdd ak waaye xam nga lu ma mooy ne ustaas bi ak yeneen ustaas yi nga yi ma gis nit ñi ma gis ñu mer ci mbir seex ngir yàlla lima ma njëkk a bugg a wax sutu yeneen di ñi nga xam ne duñu ustaas li ma njëkk bugg a wax mooy ngir yàlla jaru ngeen di saaga seex ndey seex ndeyam yónniwu ko pour mu ñëw di wax nii ak a def nii ndeyam xamana mu ngi dund wala dund waaye xam ngeen ne ndey bu yónni doomam pour mu ne di def li ak a wax lii ci askan wi bëriwul xanaa ndey bu xam feebari xel waaye seex ni manière gi ak waxam ji su fekkee ne ndeyam a ngi dund wóor na ma ne du nangu seex wax lii kon nag jaru ngeen di saaga ndeyam nit nit lu manti wax lu manti def lu mu def wax leen ak moom daay rek ngeen wax ak knowledge ngeen def seen bopp mag def seen bopp nit askan bi yëpp jigéen ci li ko toroxal la bokk moo waral sëy bon yi yëpp jigéen ak gune xàq jigéen a gune ko xalak kon nag saaga ndey yëpp jigéen la ngeen di gën a promote yëpp jigéen googu surtout yow boo dee jigéen di promote yëpp jigéen sa bopp ngay against plus xàqi jigéen ñi torox ci askan bi because of yab yab jigéen dana ñëw ci yow danga ko gis plus saaga xam nga ñen nit ñen ñoo koy def ku rus ku xamul xam-xam ak ku mënta contrôle boppam ku xamee naqat ñett ñii ñooy saaga so wax leen ak moom rek saaga ndey yi ngeen di def mel ni gune yu ndaw yu dof jaru ko wax leen ak moom rek ndeyam deful kenn dara benn ndey deful kenn dara wax ak wax ak koo xam ne moo la tooñ wala moo def askan wi lu rong waxal ak moom jaxaran mel ni nit loolu laa bëgg a wax nit ñi nga xam ne ñoom laa gi ñuy saaga ndey bi ko sof lii boot lu ma bëgg a wax nit ñi nga xam ne ustaas lañ mooy seex mu wax ni di yab yàlla yéen ñëpp ngeen jóg lii day jaaxal na ma lii jaaxal na ma you lu waa askan wi léegi mel ni xamuñ luy yab yàlla dëgg la seex lim def nii yab yàlla la dëgg la seex lim def nii jéggi na dayo dëgg la seex lim def nii condamné nañ ko waaye ku ne xam na ne seex yàgg naa def yëf yi wéradi mii du tey ku ne xam na ne seex fa yab askan wi yab boppam dafa yëpp yàlla mim jàng ba xam xar xam xam luy nit xam luy askan xam luy defar askan parce que jàng na alxuraan ba pare mu yeb askan wi yeb nit ñi mooy ne fa yeb yàlla kon nag su waxutoon lii xam ngeen ne fa yeb yàlla foo koy mbubboo rek pour nit ñi topp ko rek xam yàlla ak respect yàlla du benn waaye xam nga lu ma jaaxal mooy askan wi nga xam ne fa xam nit ñu xam yàlla te respect ko te buñ gisee ku yeb yàlla koo xam ne ni mu koy defee fa wuuteeg bu seex bi ngeen noppi teg di ko seetaan du ngeen ko condamné genn wàll ni ngeen di condamné seex loolu de jaaxal na moom ndax yéen seex ba mu fi waxee woon ñi ne bu ngeen di julli ji jumaa na ngeen sol na leen jumaa ja jox ay kondom ndax yéen ñee julli ji jumaa ñu bari ngeen a bugg jigéen te mel ni man ngeen a meroon ba teg ko ci ñetti weer te ne nii mu ñëw di wax li muy wax yàlla naan yàlla diineem ji yu xam na ci yoo xam ne duhut dëgg léeb la subhanallah ngeen ñëw naan fi ne bu ngeen ko jàppee na dee ak wala dóor leen ko def leen ko nangam def leen ko nangam bu ko wéyee dëgg def seex war nañ koo yar kay ci lim def nii war nañ koo delluwaat ca kaso ga juróom benn weer tat suñ ko sori bu ko benn nit jege góor jigéen la waaye nag xam nga luy problème lu tax nag beneen ustaas ba ne nekk Touba nag ba mu tëddeewoon nag gune yu bëri bu yàggut di yab yàlla di jàngale yab yàlla ak yab dinem ji ndax loolu la yuus ba tëddoo gune yi ndax jàngal gune yi la yuus ba tax mu xam accès xam xam yoon ci gune yi ba yàqal leen seen àdduna ngeen di ko seetaan nag ne teg booba ngeen waroon a génn di attaque nag di faaya nag booba ngeen ko war na def ustaas yi Gambie ak Sénégal tout fii ba Guinée fii ba Mali mboolem ku dégg problème boobu te doo ustaas wala doo boo duur ustaas sax doo mag ci askan bi nga cee waroon a wax surtout jullit waaye waxu leen ci nu ngeen ci war a waxee man gisuma sax ay vidéo ustaas yi ci wax de wala ay nit yu ci wax surtout ay góor wala even jigéen waxu leen ci ustaas boo nu ngeen ko war a waxee ñenn ñenn nit a ci waxoon tuuti def ci ay lay vidéo tuuti suma maas gi di wax ngeen di ma xas sax boog man meroon naa ci torop bañ demee woon Touba jàkkaarloog sëriñ bu mag ba fa benn ci sëriñ yu mag ya fa ne sëriñ Modou Kara jox ko Mike ne ko waxal ci li kii def loo ci xam mu ne moom yoonam néew ci loolu du ci wax ba pare ëlbatiku bileem gune yi ne gune yi lañ war a yar ba pare ëlbatiku ne moom fa bëgg ñu jox ko nguur gi gannaaw nguur gi ñu ñi ko ñi ko xamee mënuñu juboo nañ ko jox nguur gi biñ ko laajee mbiri nguur gi loo ci xam loolu la wax mbiri nguur gi seen xeex biñ ne maanaam Macky ak Sonko loo ci xam mu ne na ñooñu ñëpp génn kon man ma nekk candidat candidat boo xam ne sa kermangoog nga toog gune yi ñu ngi leen di tëddoo ay xati xat ku leen di jàngal xar quran nga xam ne keneen moo leen waroon di def loolu kook ñëw waare ko xas ko kook di leen def loolu ki leen war a xar quran ak yàlla ni mu bañee tëdd koot ku la takkut moos ci surtout ci guneeg jigéen ak àdduna su yàqu si léegi nga xam ne gën geneen gureeg jigéen goo xam ne xamul nu muy fonkee boppam sa fa war a ñëw ci yow nga jàngal ko fonk boppam wax ko li yàlla wax ci loolu ba mu ragal far yow nga di ko jàngal loolu ngeen waroon a génn condem ko yéen ustaas yi Gambie ak Sénégal tout surtout Touba gañ ko defee waaye déedéet gi nga nag Touba ma yu ma jël opportunité bi waxaale ci Touba tuuti Touba yàgg nañ faa dégg ay jaloore jaloore yi ñuy nëbb nag moo ëpp jaloore yi génn Touba pour nga dégg lu bon lu fa génn jaral na leen dee duñ koy nangoo génne waaye gi nga ba tey dina génn yàllaa ngi leen di weer xaduna si léegi man leen a nëbb de na si léegi kenn du mën a nëbb lu bon ku xeeb bu def boppam nit vidéo fa xam record xam ni ñi xam human right xaq xam nit ñi di la weer gi nga nag muy tuubaax ak muy fune waaye surtout tuubaa nga xam ne ni ñi fañ fay ñëw xat bu ne suma maam maam jaara bu soo liggéey ko fa ak doomam ja ngeen di ko seetaan muy yàqu te du ngeen ci wax ngeen di tax ni ñi duñ leen mën a respect suñ leen gisee ngeen war a wax te waxu leen xaq jooj moo leen dal nag nga fan man gëm naa ne sëñ Modou Kara wéyew wéy wi mu def ren nii mel ni ku ne ci film dem nga nga nga nga mel ni ay jinne yu dajee ci xàll rek comme film dëmmi tubaab yooyu jinja nga nga nga nga jinja jinja man xaw ma daal man wéyam wi xaw ma lii filmu dëmm filmu comédie bi man xaw ma lii lum do ba tey man fa mel ni may gént xam nga lii lum do xàqi gune yam wax ne du wax ci ñoom xàqi gune yam ko jox caméra bu yàggul mu ne du wax ci ñoom moo tax yàlla gàcceel ko mu def jungo jungo jungo jëm ji ñëpp di ko plé di ko reew ñëpp di ko ree mu mel ni ku dara dal muy jinga jinga jinga junga dinga dinga dinga dinga dinga askan bi